bés bu mujjoon ci màggal ga moo ci ëpp sol keroog yeesu taxaw wax ci kaw ne ku mar na ñëw ci man ku gëm na naan ndaxte mbind mi nee na ndox mu bare muy dundale dina xel ci dennam boobu li ko taxoon di wax mooy xelu yàlla mi ñi koo gëm naroon a jot fekk na joxe woon xelu yàlla mi ndaxte ndamu yeesu feeñagul woon bi ñu degge wax jooju am ay nit ci mboolo ma ñu naan dëgg-dëgg kii mooy yonent bi wara ñëw ñeneen naan mooy almasi bi ña des it ne waay nan la almasi bi mën a jóge galile mbind mi wax na ne almasi bi ci xeetu daawuda lay wàccate betleyem dekku daawuda lay joge noonu feewaloo daldi am ci biir mboolo mu ndax yeesu am na ci ñoom ñu ko bëggoon a jàpp waaye kenn mënula ko woon dara bi alkaat ya dello su mag sa ak farisan ya laaj ne lu tax indiwu leen ko alkaat ya ne leen kenn musula waxe ni nit kook noonu farisen ya laaj leen mbaa naxuñu leen yeen itam ndax am na kenn ci sëriñ si walla ci farisen yi ku ko gëm déedéet waaye mboolo mi xamuñu yoon muusa ñu alku nikodem bokkoon na ci farisen yee fa nekkoon fekk moo seeti woon yeesu lu jiitu mu ne leen ndax ci sunu yoon mun nañu daan kenn te déglawuñu ko mbaa ñu xam lu mu def ñu tontu ko ne mbaa du yow itam danga bokk ci diiwaanu galile gestul kon dinga xam ne benn yonenti musula jóge galile gannaaw loolu ku ci nekk dellu sa kër yeesu moom dem ci tundu oliweya ci ëllëg sa ci fajar mu dellu ci kër yàlla ga mbooloo ma fatee woon wër ko mu toog tàmbale di leen jàngal xutbakat ya ak farisen ya indi jenn jigéen ju ñu bettoon muy njaalo ñu taxawal ko ci diggu mboolo noonu ñu ne yeesu kilifa gi jigéen jii de dañu ko bett muy njaalo ci ndigal yàlla yi jigéen ju njaalo muusa defa santaane ñu sànni ko ay xeer ba mu de yow nag lu ci sa xalaat loolu nag dañu ko doon wax ngir seetlu ko ndaxte bëggoon nañu tiiñal yeesu yeesu sëgg di bind ak baaraamam ci suuf bilaaj ya bare mu siggi ne leen ku musula def bàkkaar ci yeen na ko jëkk senni xeer noonu mu siggaat dellu di bind ci suuf bi ñu dégge loolu ñuy rocceeku kenn kenn mag ña jiitu rekk des fa jigéen ja taxaw ci kanamam mu daldi siggin ne ko jigéen ji ana ñi la doon ji njaalo ndax kenn tegu la tooñ mu ne ko kenn sang bi yéesu ne ko man it ci sama walla duma la daan demal waay bul defati bakkaar yeesu jubluwaat ci mboolo ma ne leen man maay leeru àddina si ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dundu farisan ya ne ko yow seedel sa bopp kon li ngay wax du dëgg yeesu tontu leen maa ngi seedel sama bopp teewul li may wax di dëgg ndaxte xam naa fa ma bayi ko xam fama ma jëm waayeen xamuleen fa ma bay ak fa jëm ci gis-gisu àddina ngeen di atte man duma atte kenn teewul nag suma deme boy atte bu jub doon ndaxte du man rek ay atte waay baay bi ma yónni defa ci ànd ak man seen yoon defa wax ni seedes ñaari nit a gina wóor man maa ngi seedel sama bopp te baay bi ma yónni mu ngi may seedel itam ñu laaj ko ne kuy sa baay yeesu tontu ne xamuleen ma xamuleen sama baay bu ngeen ma xamoon xam ko bi muy wax loolu nga doon jàngale ci kër yàlla ga ci wetu fa ñu doon denc asaka ya kenn mënu woon jàpp ndaxte waxtoom jotagul yeesu dellu ne leen maa ngi dem di ngeen ma seet waaye seen bakkaar ngeen di deeyaale fa ma jëm du ngeen fa mën dem yawut waxante naan nee kat fa mu jëm dunu fa mën dem mbaa dey xaru ji yeesu tontu ne yéen fii ngeen bawoo ci suuf waaye man ci kaw laa jóge adina ngeen suqi ko waaye man bokkuma ci loolo tax ma ne ci seen bakkaar ngeen di dee bu ngeen gëmul ki ma nekk di ngeen dee ci seen bakkaar ñu ko yaay kan mu ne leen li ma leen waxoon ci njalbeen nga li ma mën a wax ci yeen ba atte leen bari na waaye ki ma yónni ku wóor la te li mu ma wax rek lay jottali àddina xamuñu woon ne yàlla baay bee tax muy wax yeesu nag ne leen bu ngeen yekkate doomu nit ki di ngeen xam ne maay ki nekk di xam ne it duma def dara man ci sama bopp li ma baay bi jàngal rekk laay wax te it ki ma yónnee ngi ànd ak man musuma bàyyi ma weet ndaxte li ko neex rekk laay def bi ñuy dégg Yeesu di wax loola ñu bari dal koy gum yeesu ne yawut ya ka gëmoon bu ngeen saxe ci li ma wax nekk ngeen samay taalibe ci lu te it dangeen xam dégg gi te dégg gi dina leen goreel ñu tontu ko ne nun ci ibrahima lanu suqiku te musunu nekk jaamu kenn nan nga nu mën a waxe ne dinañu leen goreel yeesu ne leen ci dégg dëgg maa ngi leen koy wax képp kuy bàkkaar jaamu bàkkaar la te jaam du bokk ci kër gi ba faw waaye doom moom ci kër gi la bokk ba faw kon nag bu leen doom ji defe gor di ngeen doon ay gor tigi xam naa ne askano ibrahima ngeen waaye na ngi may wutarey ndaxte li may jàngale xajul ci yéen ma sama baay won lay wax waayeen li leen seen baay di wax ngeen di def ñu tontu ko ne ibrahima mooy sunu baay yeesu ne leen bu ngeen dee waa kër di ngeen jëfe ni moom léegi nag yéena ngi may wuutarey man mi leen jottali dëgg gi ma jële ci yàlla ibrahima deful lu ni mel li ngeen doon ne ci seen baay rek ngeen di def ñu tontu ko ne nun de dunu doomi araam benn baay lanu am mooy yàlla yeesu ne leen bu yàlla doon seen baay di ngeen ma bëgg ndaxte ci moom laa jóge ñëw ci ndigalam ñëwaluma sama bopp waaye moo ma yónni lu tax dëggu leen li ma leen wax li ko waral moo di mënu leen koo déglu seytaane mooy seen baay te bëgg-bëggam ngeen di bëgg di def boom kat la musa doon du taxaw mukk ci dëgg ndaxte dëgg nekkul ci moom buy fen dëppoo na ak jikkoom ndaxte fenkat la te ci moom la fen suqiku waaye man de may wax dëgg moo tax gëmu leen ma kan ci yeen moo mën a seede ne bakkaar naa su ma waxe dëgg nag lu tax du ma gëm ku nekk doomu yàlla dina déglu ay waxam waaye leen doomi yàlla looloo tax du ngeen déglu yawut ne ko ndax danoo waxul dégg bu nu nee nit samari nga te danga am ay rab yeesu ne leen aw rab waaye sama baay laay teral te yeen dangeen may toroxal wutuma màggal sama bopp keneen na ma koy wutal te mooy atte ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kuy sàmm sama wax doo dee mukk yawut ya ne ko léegi woor nanu ne danga am ay rab ibrahima faatu na yonente yépp faatu yow nga naan kuy sàmm sama wax doo ñam dee sunu baa ibrahima faatu na mbaa du danga defe ne yaa ko gën a yi itam faatu nañu waawuloo tegg sa bopp yeesu ne leen su ma dee màggal sama bopp du am maana sama baay amay màggal moom mi ngeen naan mooy seen yàlla xamuleen ko nag man maa ko xam su ma ne woon xamuma ko ab fenkat lay doon ni waaye xam naa ko te maa ngi sàmm waxam seen baay ibrahima bég na bi mu yege sama ngan bi mu ko gise it bég naa ci lool yawut ya ne ko amaguloo juróom fukki at ba noppi naan gis nga ibrahima yeesu ne leen ci dégg dëgg maa ngi leen koy wax laata ñuy sàkk ibrahima fekk na ma doon ki ñuy wax mooy ki nekk noonu ñu for ay xeer bëgg ko ko sànni ngir rey ko waa yeesu nëbb genn kër yàlla ga amoon na fu yeesu jaaroon gis fa waa ju judd waale gumba taalibaam ya ko ne kilifa gi lu tax waa ji judduwaale gumba ndax bakkaaram ako waral walla bu waajuram yeesu tontu ne ajewul ci bakkaaram walla ci bu waajuram waaye loolu dafa am ngir jëfi yàlla yi feeñ ci moom bëccëg lanu wara motal jëfi ki ma yónni guddi dina goo xam ne kenn du ci mën liggéey ci bi may nekk àddina may leeru àddina bi yéesu waxe loolu ba noppi dafa daldi tifli jaxase lor wa ak ban tey ko ci bëti gumba ne ko demal sulmu ci beti silowe silowe mu ngi tekki yónni nañu ko gumba daldi dem sulmu ji dellu digis dëkkandoom yi ak ñi ko xamme woon ba jikk ci yalwaan naan xanaa du kii moo doon toog di yalwaan ñii naan moom la de ñee naan du moom dañu niroo mu daldi leen ne man la de ñu ne ko ubbi say mu tontu ne ku ñuy wax yeesu moo tooyal ban tey ko ci samay bët ne ma demal sëlmu ci betu silowe maa dem nag sëlmu ji dal di gis ñu ne ko ana waa ji mu ne leen xamuma fu mu nekk noonu ñu daldi indil farisen ya nit ku gumba woon ndekete yeesu bés bi mu tooyale ban ubbi buti gumba ga bésu nooflaay la woon looloo tax farisen ya di laajaat waa ji fa mu jaar boy gis léegi mu ne leen defa ban ci samay bët mu sëlmu ba fi ma nekk maa ngi gis ci noonu am ci farisen ya ñu naan kii def lii mënula joge ci yàlla ndaxte toppul besu bés nooflaay bi ñeneen it di wax ne nan la boroom bàkkaar mun a wone yi firndi noonu ñu dal di seen biir farisen ya la jaat ku gumba woon ne ko yow loo wax ci moom yow de la ubbil say mu ne leen yonenti la yawut ya mënuñu woon nangu ne nit ka defa gumba woon tey gis léegi ñu daldi wóor ji ay waajuram laaj leen ne ndax kii mooy seen doom ji ngeen ne gumba judduwaale la kon fu mu jaar bay gis léegi waajur yaa tontu ne xam nanu ne daal sunu doom la te dafa judduwaale gumba waaye ni mu def léegi boy gis xamunu ko te xamunu it ki ko ubbil ay bëtam laaj leen ko magum jëmm la te man na tontul boppam ragal yawut ya nag moo taxoon waajuri nit waxe noonu ndaxte yawut ya dañu manko woon ne képp ku seede ne yeesu mooy almasi bi ñu dàq la ci jàngu ba looloo tax waa jur ya ne laaj leen ko magum jàmm la farisan ya dellu woowaat ku gumba woon ne ko waxal sa diggantek yàlla xam nanu ne waajooje borom bakkaar la mu tontu ne xamuma ndax borom bakkaar la am déet li ma xam daal moy gumba woon naate te léegi maa ngi gis ñu laaj ko ne lu mu la def nu mu la ubbile say bët mu ne leen wax naa leen ko bo noppi waaye déglu wuleen ma lu ngeen bëgg ci ma di ko wax di waxaat xanaa dangeen a bëgg nekk yéen itam ay taalibeem ci kaw loolu ñu dal di ko saaga ne ko yow yaay taalibem nun taalibey muusa lanu xam nanu ne yàlla wax na ak muusa waaye kii xamunu sax fu mu joge waaju ne leen loolu de doy na waar xamuleen fu mu jóge te mu ubbi samay bët xam nanu ne yàlla du déglu borom bàkkaar waaye nag dina déglu ki koy ragal tey def coobarem bi àddina sosoo tey musuñu dégg nit ku ubbi bëti gomb judduwaale kon nit kooke nag bu jógewul woon ci yàlla du mën a def dara ñu tontu ko ne yow ci biir bakkar nga do ba noppi di ñu jàngal noonu ñu dàq ko ci jàngu ba yeesu daldi yeeg ne dàq nanu nit ka bi mu dajeek moom mu ko ndax gëm nga doomu nit ki waaja ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm yeesu ne ko gis nga ko ba noppi te mooy ki wax ak yow waajane borom bi gëm naa la noonu mu jaamu yeesu yeesu ne ko attee tax ñëw àddina ngir ñi gumba gis ñi gis kumbo bi farisan ya nekkoon ak moom dégge loolu ne ko xanaa kon nun it danu gumb yéesu tontu leen ne bu ngeen gumba woon du ngeen am bakkaar waaye fi ak yéena ngi naan ñu ngi gis ci bakkaar ngeen di dëkk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fudul ci buntu gett gi kooku sàcc la saay saay la waaye ki jaar ci bunt bi mooy sàmm xar yi wattukat bi dina ko ubbil bunt bi xar yi dégg baatam xar yi mu moom nag bu ci nekk dina la woo ci satur ba noppi nga topp ko ci bit sàmm bi bu génne yi mu moom yépp dina leen jiitu ñu topp ko ndaxte xam nanu baatam waaye duñu topp jaambur dañu koy daw ndax miinuñu baatam yeesu misaaloon naa leen lool waaye xamuñu lu mu leen doon wax noonu yeesu newaat ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax man maay buntu gëtt gi ñi ma fi jiitu ñépp ay sàcc lanu ak ay saay-saay waaye xar yi dégluwuñu leen man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc dinga mën a dugg ak génn dinga am it mbooy goo mën fore sàcc bi moom day sàcc si rek di rey ak yàq man dema ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange man maay sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ki dul sàmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar bu seene bukki day daw bay fa bu ko defee bukki ba dal ci coggal ja jàppa ce tasaare ya ce des booba surga day daw ndaxte xaalis rek lay liggéeyal faalewul xar ya man maay sàmma bu baax bi ni ma xame baay bi te baay bi xame ma ni noonu laa xame samay xar te ñoom it nii ma xame te it kat dinaa sama bakkan ngir xar am na yeneen xar bokkul ci gëtt gi war naa leen indi ñoom it te dinañu déglu sama baat benn coggal ayam ak benn sàmm baa bi na ma ndax te damay joxe sama bakkan ngir jëlaat ko kenn du ko jële ci man maa koy joxe ci sama coobarey bopp am naa it sañ-sañ joxe ko te am naa sañ-sañ jëlaat ko loolu la ma sama baay sant kaddu yooyee ñoo feewale waat yawut yi ñu bare ci ñoom naan defa ànd ak rab dafa dof lu tax ngeen koy déglu waaye ñeneen naan nit ku am ay rab du waxe ni ndax rab mën naa ubbi bëti gumb am bés ñu doon màggal ci yerusalem bés bu ñu sellale woon kir yàlla ga ci jamonoy sedd la woon yeesoo nga woon ci kir yàlla ga di doxantu ci biir weranda bu suleymaan yawuti ya ko ne ko kañ nga ñuy dindi ci kumpa boo dee bi wax ko mu yeesu tontu leen ne wax naa leen ko ba noppi waaye gumu leen jëf yi may def ci sama tur baay ñoo may seede waaye gumu leen ndaxte bokku leen ci samay xar samay xar ñu degg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dema leen di jox dund gudul jeex duñu sanku mukk te kenn du leen jële ci sama loxo baay bi ma leen jox moo gën màgg lépp te kenn mënu la jële dara ci loxo baay bi man ak baay bi benn lanu yawut ya dal di foraat ay xeer bugg ko senni ngir rey ko noonu yeesu ne leen def naa ci seen kanam jëf yu baax yu bare ci ndigalu baay bi ban ci jëf yooyu moo tax ba ngeen bëgg ma sànni ay doj yawut ya ne ko jëf ju baax taxul na bëgg laa sànni xeer waaye dangay suufeel turu yàlla yow nit rek nga ba noppi di def sa bopp yàlla yéesu bind nañu ci seen téereb yoon ne yàlla nee na ay yàlla ngeen yàlla wooye na ay yàlla ñi mu yónnee kaddoom te xam nanu ne kenn mënu la randal waxi yàlla kon nu nge mën a waxe ne demay suufeel turu yàlla ndax li ma ne doomam la man mi yàlla tànn na yónni ma ci àddina su ma deful sama jëfi baay bu leen ma su ma ko defee bu ngeen ma gëmul sax gëm leen bok samay jëf ngir ngeen xam te nangu ne maa ngi nekk ci baay bi te baay bi nekk na ci man ñu di ko wuta jàppaat waaye mu bayi leen fa dem yeesu genne jàllaat dex yurdan toog fa yaxya daan soobe ci ndox bu jëkk nit ñu bari ñëw ci moom te naan yaxya deful benn kéemaan waaye li mu wax ci kii yépp dëgg la noonu ñu bari gëm ko